salaamaaleykum mbokki internet yi salaamaaleykum mbokki tëngeet yéen ñi safoo di seetaan suñu chaîne bii di Rio Plus tey nag ni ngi am mbégte ak contentement. tey nag Libaas leen dalal Libaas nuyu naa la. maa ngi lay fay Cheikh. Libaas maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi lay dolli ziar di nuyu waa Tëngeej yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora bi yëpp. Mhm. di kontaan ci seet si bii ngeen ma seet si fii ci sama place. Mhm. ci këri kaw en face euh, préfecture bi. Mhm. tey Libaas ñoo fi ñëwoon tey si émission bu tudd Jàmbaar. bu ñu waxee jàmbaar maam koo xamante ni ci un ci ñaar fukk la commencé dem ba yàlla dimbali ko teg ko loxo te bu nee libaas mbuub libaas ci li nga ko mën a dugal bëri na libaas mbuub joueur libaas mbuub ambassadeur mais tey danoo ñëw ci libaas mbuub ci fii mu nekk mi réseau libaas mbuub parce que leader nga léegi. 3S c'est libaas. merci libaas ma bëggoon a xam say début ci biir 3S fii ndax nan la demee. waaw di santaat bu baax ndax euh, liñ naan tàmbali bu sew mu jëntal ga mën na yaa mm-hmm. waaye tàmbali bu yaa mu jëntal ga mën na sew di ci mm-hmm. santaat bu baax sama sëriñ bi di sëriñ Cheikh Béthio mm-hmm. jaamu sëriñ Saliou di santaat soxna Aïda Diallo bu baax a baax moom ni ñu sëñ Béthio booleel muy dégg dégg jëmmam muy mel na sabab bi nag euh, ñëpp xam nañ ko daanaka li ëpp ndax liñ koy wax bari na màggal moo jub si woon Euh, ñu toog di footballeur mm-hmm. war a matal suñu sas suñu xel dem ci ne lu tax mënuñoo teg termus comme café daa barkeel mm-hmm. waaye bi ñu jëlee termus dem bunt buntu lycée Abdoulaye Sadji nga xam ne tëngéej yëpp fa la ñuy daje mm-hmm. commencé di jaay Serigne Touba def mu barkeel ndax li ñu Serigne Touba di wax mooy sañ Béthio màggal ku la raw ci la rawee daanaka mën nañu liggéey foofu la tàmbalee ñu àndee woon ko nag ak suñu jëriñ joo xam ne moo ñuy saañ saa su ne muy jëriñ membre mbuub universel mhm. ñu koy nuyu de passage àndee woon ko ak sama xarit xalifa Badiane mhm. ak euh, Badou Sakho ñuy samay rakk di sama lépp wax dëgg yàlla mhm. jàppale ma ci jàppale boo xam ni tey fii ma yegg mën naa ne ñoom la ak sama doomu ndey Baara Ndiaye ndax ba may tàmbali maanaam koppar ya a tàmbalee jënd kafe sax ci Baara Ndiaye la jóge woon ma koy santaat bu baax di wax ni tàmbali bi nag mooy li ngay wax rek xawoon na metti dem ñu teg termus mu jigi ñu jékki-jékki teg taabul ak gaz bagage yi mënatul dem kër ga ndax xaw na sori sama benn xarit bu nekkoon fii góor gi seen mhm. Ousmane Sène Góoseen Korsu Góoseen Korsu Góoseen ak ay rakam ñoom rasul ñoom daan jàppale bagage yi muy fanaan seen kër mu nekk lu ma dul fàtte wax dëgg yàlla loolu di lu neex lool mhm. waaw ci noonu daal lañu tàmbalee mhm. te laataa ngay tàmbale ñépp xamoon nañ Libaas Mbuub te ban koy xam du jaay moo taxoon ñu xam ko ñu ko xamoon ci wàllu fubal libaas bu boo nee tëngeej foo dugg ci tëngeej boo ne libaas boobu rek dañ naan la ndeysaan cëm ancien jour ba boroom tànk ba libaas sa digganteeg fubal yàggoo ci yàggoo ci mais tamit def nga ba ñépp marqué sa empreinte fii ci tëngeej rawat na ci territoire Sénégal waaw loolu ñu koy sante ndax nit ku nekk da ngay da ngay doyloo sa bopp doyloo yàlla hmm. gëm sa bopp lañ ko mën a waxee waaye gëm yàlla xam ni lépp loo doon loo nekk leader nga ci war a doon tey bi may fubal dama doon fexe don exemple boo xam ne kenn du ma dégg ci lu ñaaw mhm. mooy dinaa respecté samay adversaire mhm. dinaa respecté samay entraîneur dinaa respecté sama ñi nga xam ne ñoom laay fubalandool mhm. dinaa fexe ba saa su ne buñ nee benn libaas lay doon wala buñ nee ñaar benn bi bu doonee keneen ñaareel bi libaas lay doon di wane ci njàmbaarte ak xarañte waaye fubal nekk na loo xam ni mooy li ñuy wax rek onze yoo gis ñaar la ñuy gunge bu baree ba bari ñett biñ demee ba xam ni fii la ñu yàlla yamloo mën nañ ko bëgg nañ ko te àdduna yëpp xam nañ ni mën nañ ko mënoone ne football tëngéej te doo tudd libaas. bi loolu amee nag ñu leer ñu ne ñuy jëm mag te lii pour ñu tekki ci dina jafe. si lañ am fulla ju doy ni walbatiku ne duñu dem fenn. fii ci dëkk bi la ñuy toog liggéey mhm. mooy li waykat bi way du ma dem fenn fii laay toog ah. ñu gëm loolu mhm. di ko dund yàlla diñ ci suturaal mhm. ndax tey gis nañ ay jeunes yoo xam ne dama koy waxaal de passage ñu ngi dugg gaal ñi di jël ay risque di def loo xam ne la ñuy wuti fee mu ngi fii man maa ngi fii kafe laay jaay spaghetti fataaya hamburger local mhm. mais terewul tëgg bi ñëpp ma respecté comme tëngeej kenn du xeeb kenn mhm. rawatina ñu la gisee ngay liggéey par mhm. contre sax am naa ci respect boo xam ne autorité yëpp a jox cër tëngeej ñëpp laa séexal jaam te loolu dafa am solo bu ñu xeeb suñu bopp ba tax na foofu la liggéey bi tàmbalee. ñu ñu wàcc ci football bi ndànk. dugg ci liggéey bi boobook léegi nag di ci di ci def fulla ak fayda ndax lu ñuy def ak lu mu mënti doon. fulla moo li naan jom mooy tukki waaye fullaay ñibbisi fulla jooju la ñu am. xam ne fii lañ jógee. dëgg la fii lañ toll fii lañ bëgg a yegg. Mhm. boobook léegi nag yàlla mu ngi ñuy suturaal. Mhm. ñu ciy liggéey. Euh, waa dëkk bi ñu ngi ñëw di jënd ci ñun jiboon nañu wax waa dëkk bi élèves yi man ak ñoom daa dem ba famille dimanche sax élèves yi def lii damay ñëw ci ñoom di mhm. jaay ndax mënatumaa toog sama kër dëgg la dama dem ba mën ak ñoom famille la te mhm. loolu mooy àdduna dëgg la ci sa dégg-dégg bu njëkk bi wax nga ni ba ngay commencé table nga teg mhm. yor sa termus termus rek laa teg après ma teg tabourier léegi bu ñu ba lii bërëb bi ñu ñëw fii lan moo la indiloo fii ci biir bërëb waaw fii nag dama koy santaat bu baax euh, monsieur le maire bi fi jógee muy maire sortant di Daouda Niang wax dëgg yàlla ndax dama nekkoon fële après ma daaj mbaar bi ñuy déggee piir mhm. fekk si trottoir bi laa tegoon. njëkk naa fa daaj sax ñu taal ko xaw ma kan moo ko taal. Mhm. wax dëgg yàlla muy lu daw yaram eh, te xaw ma kan la jotewu ma kenn. Mhm. bi ñu ko taalee. sama yaay ne ma ki ko taal de jarul ngay plainte jarul dara. bàyyi ko xëj na dalay taal te xamu ko. dëgg la mu taal dañ taal place ba mu jeex takk. taal ba la jig ba mu jeex takk. Mhm. si laa toogee nag après daajaat mbaa daawda ñaa ñoo ne fii dañuy dégër piir muy ko baax père mhm. ñu koy siyaar de passage ak seen ñaa. Mhm. wax dëgg yàlla ñu def si lu am solo ñu ñëw ne ma espace bi day ville bu Rufisque moo ko moom. Mhm. mën nañ la ko jox nga liggéey fi ndax gis nañ ni am nga jom te nangu ngaa liggéey wax ci man ay kàddu yoo xam ne kàddu seede yu rafet la. dëgg la jox ma fi depuis loor ne ma tilim lañ fiy bañ ak boucan ak nangam. waaw ah. boobook léegi ma koy doxee daanaka maire bi fi ñëwaat indilu ma benn coow. te wax mhm. dëgg yàlla amul kenn ku ma mës a indil coow. dëgg la boo xoolee place bi poubelle yaa ngi nii chaise yaa ngi nii teg. wax dëgg yàlla set wecc te loolu mooy liñ ma digal. neex naa jëndee neex naa toogee bu demee ba parent d'élève yi dañ lay oo téléphone sama doom nangam sama numéro téléphone fii laa ko bind élèves yëpp a ko am ak parent d'élève yi loolu rek sant yàlla la mhm. wax dëgg yàlla élèves yi mhm. la mhm. école bu nekk am na restaurant waaye élèves yi dañuy génn ci biir école yi ñëw di jënd ci moom wax dëgg yàlla mu mu nekk loo xam ne sac la ci man ma defal leen fi fi defal leen fi ay table élèves yi nga xam ne dañu def examen wala élèves yi nga xam ne dañuy def ay recherche dañuy ibbi seen téléphone ñëw def recherche jàng dem amul caaxaan ku daw jàng dootu toog dëgg la loolu monsieur Ndoye mu ngi koy seede ak euh, Abdou Dieng mhm. euh, semaine passée ci interview li leen doon def muy lu may lu may santaat muy mhm. waa EPOFT ak waa EPLA lycée Abdoulaye Sadji lycée mhm. moderne élèves yi dañuy génne fu ne ñëw fii ma koy sante bu baax ndax su ma meloon neneen wala su njaay mi salte woon ndax lekk dafa doy waar parents d'élèves yi duñ bàyyi seen i doom mais dangay gis ñu ñëw aboneel seeni i doom aboneel seen i doom ñuy ñëw bu ñu génnee ñëw toog lekk ba dem ndax parce que élève ku gis élève des fois nga gis élèves yoo xam yu yoo xam yu yaradiku des fois nga da nga naan ñii est ngaa dund sa diggante yow ak élève boo xamante ni maanaam na muy ñëwee ci yow wala na mu comporté woon jour boobu métti na la trop ba nga def loo xamante ni amaana waroon koo def sa diggante ak moom waaw loolu nag mënul ñàkk mhm. parfois nga gis benn élève mu ñëw am comportement boo xam ne da ngay xam ni kii fii lañ ko nara a yàqee waaye këram yar nañ ko mm. ma oo ko waxtaan ak moom mu déggal ma parfois nga oo ab élève di waxtaan ak moom mu jaay la réew na goo xam ne danga koy nangul xam ne noonu lañ koy yaree këram waaye sa yéene mooy élève bi rek élève bi rek la ba noonu laay dundee ñoom élèves yëpp wax dëgg yàlla am na ci nag ñu yarul wax dëgg yàlla ñoo xam ne dañuy dem bay dëng boo leen oowee te du waaye da nga naan du ñii laa doon waxal jub xoj lañuy ñuy def fu wane rek fii jàngukaay la te mën nax ñoom yàlla daa dogal famille la am na ci ñoo xam ne nag moom loolu fépp la yàlla sax am na ñoo xam ne pour mu jubbanti leen day day xaw a jafe waaye am na ci ñoo xam ne li ci ëpp bokk saa ma waxee ak ñoom ñu dégg moom ñii def ma seen pap def ma seen lijaay man ak ñoom famille la mooy li may wax élèves yi ñoom man ak ñoom moom kenn mënul dem bàyyi moroomam wax dëgg loolu loolu loolu sa cër la mhm. parce que sa waral la tamit ndax fi nga bokk bu ne libaas mbuub wala bu jé jéggee libaas mbuub dem ba ca wayjur bu góor mi alaaji may sa mbuub ak sa wayjur bu jigéen mi soxna may mën a dañuy xam ni kon nii rek nga mën a mel parce que ñoom danoo dem ba marqué seen empreinte fii ci Tëngéej. Mm-hmm. waxewuma la ko pour jeter le fleur. parce que daa am loo xamante as tuut dama ko fekkee. te man xale bu ndaw laa mais am na loo xam fekke naa ko te toog naa sa yaay gërëm la say mag gërëm la. libaas buñ jugee ci wàllum liggéey bi fii ak C3S sant Serigne Saliou muy liggéey bi ngay liggéey maa dañuy xaw a génn tuuti dem ci liggéey dem ci libaas ambassadeur Rufisque parce que buñ demee ba fal la ambassadeur Rufisque rek kon maanaam nekkatoo ci fii kese libaas léegi libaas tëngéej la am loolu lan moo ko waral loolu liggéey la wala boog loo xamante ne dañoo dem ba xam ne yow mérité nga lii ñu solo la mbuubu boobu jox la raaye bi waaw loolu it li ñuy li ñuy sante yàlla la ndax dañoo gis ni tëngéej suñu mag ñi fi nekkoon euh, mel nañ ñoo xam ne ñoom ñëpp ay référence lañ su ma limee nag damay jum waaye mën naa ci seppi ñenn rek mën nañ leen duut baaraam mhm. ku mel ne suñu yaay xaar mbay ma jaaga bu dee ci cadre culture ak mhm. way moom kenn dootu ko nattable ndaanaan gi mu dee te kenn musu ko dégg ci lu dul lu correct. dëgg la ku mel ni Baye Ili. kenn musu ko dégg ci lu dul lu correct. ku mel ni Mbaye Jacques bu dee ci wàllu politique. kenn musu ko dégg ci lu dul lu correct. ku mel ni suñu papa Mass Ngom. ku mel ni suñu baay Ibrahima Sakho. ku mel ni suñu maam ñoom Cànnaar Ndooy. maam Kora Fall maam Kora muy ñoo xam ni ay référence lañ. wax dëgg yàlla duma wax xale yi nag. Mhm. mag ñi rek laay wax. ñenn ci mag ñi ñi nga xam ne ñoom laa jàpp. Mhm. ñooñu buñ leen xoolee. war nañ xam ne ñun jeunes yi dara waruñu lu correct ak doon référence ndax ñooñu ñëpp référence lañ boo xam ne du Tëngéej biir Sénégal la kon ñun looloo ñu war mhm. ma demee toog nag xool loolu ne Tëngéej la moo tax mu nu mënuñoo booloo ñun ñëpp ñu doon benn ñun dañoo bëggante liñ naan di koy lébu la dañoo bëggante waaye parfois duñ comprendre ma sol sama daal di xool moo xam footballeur mhm. mbër musicien mhm. ak élève ak ku mu doon nan la ñuy def ba doon benn ba defar tëngëj mhm. saa su ne ma ciy xar sama tànk tubéy di ci dox ci loo xam ne amul politique dëgg la loo xam ne faral parti bu la neex faral équipe bu la neex na mbër mu nekk si sa mbër waaye nañu booloo ñun doomi tëngëj xam ne ñun doomi tëngëj ñoo bëgg a defar tëngëj dëgg la boobu ak di ma defar sutura fépp fuñ ci dugg am ci ndam moo tax du ma bëgg a lim waaye àndee kook ñoo xam ne tëngéej rek a leen ñor bu ñu paree ci parti politique wala ci mhm. benn équipe moo xam mhm. ASC la wala sax équipe bu FC yi di équipe championnat yi mhm. terewul bu ñu àndee ngir defar tëngéej ñun ñëpp benn la ñu doon yàlla diñ suturaal moo xam préfet buñ ko seetee mu ibbil ñu ay buntam jox ñu teet Euh, saltige ndey ji réew mhm. ibil ñu buntam ànd ak ñun buñ seetee commissaire mhm. mu ibil ñu buntam mhm. jox ñu cër loolu moo waral dem ba tëngeej bi yëpp maa si xam ne kii dara yi tellu ko lu dul tëngeej man aw ma fu ma far te kenn du ma tëng su ma juumul sax danga ngaa benn mouvement bu tudd ànd defar tëngeej waaw te maa ngi ci doon suivre information yi daan ngeen dem ay Youssou Mbarr nit wala muy dëkk dëkk état mënu koo defar waa dëkk ba ci boppam ñooy nekk ca yoon pour defar ko état bi ñëw teg leen loxo te car macha allah loolu gis naa ko maa ngi gis image gis vidéo yi ngeen dem Youssou Mbargane hôpital Youssou Mbargane wàcc sur le terrain ngeen defar defar ko ba mu rafet a rafet loolu lépp pour bëgg tëngee am xar kanam bu rafet. moo tax ndax Youssou Mbargane dañ daan dégg ku nekk di ko xas. Mhm. te bu ñu xasee Youssou Mbargane ñun lañ xas. Mhm. hôpital bi ñii ñu fiy affecté. dëkkuñu fi dañuy dem parfois ñu affecté fi keneen mu dem ñun ñu fi dëkk lan moo tax mënuñoo booloo jël suñuy koppar di ko ci def mhm. bi loolu amee ñu dajaloo ma wax ñi ma war a waxal ñu créé mouvement bi tudd ànd defar Tëngéej ñëw Youssou Mbargane fekk fa directeur bu baax wax dëgg yàlla mu ibil ñu bunt yi lépp lu fa doon suuf ñu dindi ko def ko Youssou Mbargane sans sable te niñ koy defee ñun waxuñu diw day politique mhm. lii déedéet doomu Tëngéej la mhm. nekkal ministre nekkal lii ñu seet si la nga waxtaan a ñun ànd ak ñun ci liggéey bi mhm. musicien nga ñu seet si la mbër nga ñu seet si la joueur nga ñu seet si la xale bu ñu seet la puus puus nga ñu seet si la taaba taaba nga ñu seet si la waxtaan nga indi sa juróom. kii indi fukkam kii indi cinq cent mille ñu booloo jënd li ñuy jënd ci saa si àndee ko defar ko tabax ko dër ko. te yamul foofu de ndax Youssou Mbargane bi daa gën a fes mais boo xoolee ñu ngi dox ci action sociale yoo xam ni mhm. même ci école yi mhm. école yi nga xam ne toilette yi baaxul ndax rafetul ab xale bu jigéen génn dem ci ab kër di ñaan saw mhm. ak fi jamono tool lu ne mën na ko fa fekk ñu commencé dugg ci yenn école yi commencé di ko defar commencé it agression bi nga xam ne daa am ci tëngeej ñun ñëpp ñu teg suñu bët ñu jakartamaan yeeg yëpp ñu ciy dox li ñu mën wax dëgg yàlla ànd kaak autorités yi si dëkk bi ñu nangul ñu ko boobook léegi ñu ngi ciy gis changement boo xam ni wax dëgg yàlla ñun sax daf ñoo daf ñoo mujjee neex dafa dem ba daa gën a nekk suñu deret lu ñu bëggoon la waaye dafa dem ba bokk ci ñun ndax ñi bokk ci ànd dafa tëngeej yëpp dañ nekk ay responsable foo dem ba ab imam bu nekk ci jumaay murit bu tëngeej ànd ak ñun ci ànd dafa tëngeej bokk ci mouvement bi mhm. muy sëñ Sarr ñu koy nuyu de passage dem ba saltige mhm. euh, Ablaye Gueye jaraaf ñoom ñëpp di ay ay chef yoo xam ni euh, ci wàllu cosaan ci mhm. tëngeej ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ñun amatuñu lu ñuy def lu dul jub ak jubal wax dëgg yàlla kilifa yëpp jox ñu bopp ñu àndee ko nag di ko liggéey liggéey bu rafet mu mouvement boo xam ne ñu koy waxaat encore une fois te di ci oo ñëpp ibil nañ ñëpp suñu bunt c'est apolotique tëngéej moo ñu tax a jóg képp kuy wax loo xam ne tëngéej moo ko ñor foo ñu oo ñu wuy la moo xam garage clandestin yi la moo xam kanaal yi ñu war a defar la moo xam dëkk bi côté bu amul làmp moo xam miir yu daanu ci hôpital lu mu doon te concerné Tëngéej suñu ci oowee ñu ngi ci bu ñu ci oowul ñun dinañ xëy di wër di ko filmer di ko wan autorités yi ngir ñu defar ko ñun loolu rek a ñu tax a jóg ànd defar Tëngéej jubloom loolu kese la. avant ñuy daaneel benn message ngay jox ndaw yi bu ne ndaw maam sama genre wala boo ay xale yoo xamante ne maanaam xëyuñu gontuñu jël seen lépp ba ko wékk ci lan toog muy dox. topp naar bi wala bokk mun nga topp naar bi sax mais da fekk yow ngay liggéey am jomu liggéey lan ngay conseil jeunes yow nga xamante ni ngay gis. xëy ñu góor su ma ko déggee sax ay ree damay jàpp ndax bëgg lu yomb. weesuwul loolu te ñi koy def sax xam nañ ni lu yomb baaxul. dëgg la lu yomb ñi koy def sax xam nañ ni baaxul. maanaam baaxul du ay lii baaxul boo robboon fii léegi léegi benn somu xaalis bu bari foor ko war nga kaa téye toog lu yàgg. yóbbu ko fa nga war a yóbbu mais jël ko jaay ko sax di nga xam ne lii du la jëkk ndax xam nga ne nit a ko moom kon lu yomb mënul baax mënul baax ñu li ma leen di wax mooy nañu góor góorgóorlu te jéem a diggee te xam ne bëri le barkeel lee ko gën nit ku la ëpp xaalis moo la ëppi problème ku la ëpp xaalis moo la ëppi problème kon ni ñuy def mooy di digal ndaw ñi ñu xool ci ku mel ni Paco Boy xool ci ku mel ni Libaas Mbuub bii taxaw xool ci ku mel ni ñaambay du ma jël référence feneen fu foofu nit ñi bari nañ ay xale lañ dëkk ci dëkk bi dem uti am ñu indiwaat ko ci dëkk bi ngir waa dëkk bi teg leen bët def leen mm-hmm. référence. Mm-hmm. man ñooñu laa mën a wax ñi ci des bëri na. su ma mm-hmm. limee damay jóg waaye ñoo ñu nekk na ñaar ñoo xam ni tëngëj yëpp a ngi leen di bàyyi xel. ndax li ñu am bokk nañ ko dëkk bi te jëli nañ ko te liggéey nañ ko te barkeel na. te kenn ku ci nekk nit ku nekk mën nga waat ne lii mu am liggéey moo ko may ak ñax. foofu laay oo ndaw ñi. tey ji boo duggee euh, nga baal ma ci marché bi. pousse pousse da nga koy loué deux cent dem benn maire tegal la nga yóbbu ko balaa ngoon a jot mën nga am junni. dëgg la bëccëg junni weer bi ñaata la boo xeebee liggéey bi doo dem. te sa doole nga koy defee mhm. ndox mu sedd jamonoy tàngaay lañ ne boo jëndee sachet bi yaa ngi koy jëndee 500 boo ko jaayee 1500 lay doon am nga bénéfice 1000 francs mhm. ñaata sachet nga mën a jaay par jour bëri na boo liggéeyul yow la neex mhm. xeeb lañ war a ba xeeb xeeb liggéey loolu rek moo fi indi lii xeeb la dëgg dëgg ci ñetti ñii laa lay limal ñoo xamante ne dañoo sës yow rek bi ci njëkk sa diggante ak Baara Ndiaye beneen bi sa diggante ak Maxet Diop Pako booy beneen bi sa diggante ak mbay gis ne nin sësee ci yow loolu moo tax question boobu moom laay daanale rek. ndeysaan waaw yow yow yow da ngaa baax ndax Baara Ndiaye moom mooy man maay moom. Mm-hmm. ndax moom nii ma def la def te xam naa ne di nga fa def dem dem defi émission. incha allah ak Poko Boy kii ndax Baara Baara boo xam ni. Mm-hmm. maquette la ne woon ci dëkk bi ñëpp di ko gis teg taabalam mu gi mu daaj kantinam mujj gi mu ibbi benn place ibbi dem ba ibbi ñaar ba ñetti place ba fi toll ni baara dafa international baris kom noonu te li ko may mooy liggéey gëm boppam te musul génn tëngéej su génnee ñooñu ñoo ko yóbbu voyage mu dem am lu mu mu dem Tiwaawan waaw xam nga rek dafa neex dëgg la loolu référence ci Baara Ndiaye lay am mënul weesu Baara Ndiaye mhm. Paco ak Maxet nag moom lu lu xam la peut-être ñun suñu Paco suñu ànd football moo ñu boole woon. Mhm. moom it mu nekk reconnaissant boobu ak léegi amul lu changé. Mhm. tëngéej gi yëpp ko seede ni mu meloon noonu la mel ba tey. Mhm. wax dëgg yàlla su ñu ànd. muy moom di Pape Cissé di gars yi ma daan àndal ñoom Émile Sega Diop. xam nga ni ñu doon àndee la ñuy àndee ba tey wax dëgg yàlla muy ànd bu sincère ànd bu rafet. ba léegi nii ñooy ànd ñoo bokkaat groupe amul lu changé. te loolu mooy nit. ba tax na loolu ñu ngi ciy oo ñëpp. wax dëgg yàlla ñu xool ñoo ñu def leen ay référence ñaambay nag di suñu rakk joo xam ni moom bi ñëwee gis suñu liggéey ak ni ñuy doxee mu nekk loo xam ne lu ko lu ko lu ko neex la sama jikko neex ko daanaka ñuy waxtaan di partager lu bari mhm. àndandoo di doxal ba lépp lu jëm ci sport ci tëngeej wala nangam bu ci naree dugg dañ ciy waxtaan ak yeneen ak yeneen yoo xam ni mhm. du da nga koy wax ci micro waaye muy koo xam ne référence bu ñu war a bàyyi xel la mhm. te war di ko ñaanal ndax moom day jàmmam baax na ci tëngeej de wax dëgg yàlla ma Mamadou Niang Mbaye mhm. yàlla na jàmmam yàgg wax dëgg yàlla ndax def na fi loo xam ni nit musu ko def ci tëngéej nit musu ko def ba tax na fi may daanelee su fekkee man damay daaneel xaw ma damay daaneelam déet <laughs> mooy li ñuy ñaan mooy doomu dangu dafa am combat mhm. combat bii doomu dangu jëm ñu ngi ñaan yàlla na ko ci yàlla defal ndam te bu ci jógee ndam li jik ko mu continuer ak ay ndam biñ ciy toftal mooy mhm. Asgel de Rufisque bi nga xam ni mhm. euh, mu ngi ci Ligue de di fas yéenee yéeg mhm. mu dese ko 3 ba 4 mat yàlla na dóor 4 mat yëpp ndax bu ko dóoree rek yéeg ñuy ñaan waa Tëngéej yëpp ñaanal ko ndax ñu Tëngéej la ñu am guddi guddi Tëngéej beneen bi nag mooy daj dëpp gi muy TFC équipe bi nekk Ligue 1 taaw di waaw di taaw ñu ngi koy ñaanal championnat bi nga xam ne mu ngi ci loxoom yàlla na ko jël bu boobaa Tëngéej gën a neex ñetti victoire ko teglee amaana lépp lu ñu amoon ci métti dañ koy fàtte ndax ñun tëngeej la ñu am. guddi guddi tëngeej. kontaan nañu Libaas li moo nekkoon tey si seen beneen numéro ci émission jàmbaar yi mbokk yi tey maa ngi nekkoon fii ci këri kaw dalaloon Libaas Mbuub seet si ko woon fii mu dalal ma ci jàmm ak salaam Libaas li nga wax dëgg la ñun tëngee dana war a bokk ndey bokk bàyyi doomu dàngu sa combat bii di ñëw incha allah yal ci yàlla may ndam bu sedd guy. Azel yàlla nga yéeg ci jàmm ak salaam te nga FC di nuyuwaale ña fa nekk ñëpp. di leen bëggee yéen tamit di leen bëggee ñeen tamit yéen waa Rio Plus wax dëgg yàlla ndax gis nañ seen liggéey ci nawetaan yi. Mm-hmm. gis nañ leen liggéey ci sport. Mm-hmm. wax dëgg yàlla dangeen ngeen ñëw ci stade bi photo booy événement bu am tëngéej ak bu mu mënti doon dañ leen ciy seen. seen photo yoo xam ne dañ ciy seen seen affiche loolu ñu ngi leen ciy bëggee bu baax ndax mm-hmm. lii la man de lépp lu ma leen o lu jëm ci tëngéej ci saasi da ngeen di ñëw sans autant que ngeen laaj sax ne transport wala dara. ba ci événement yi ñuy def yëpp muy lu jëm ci ànd defar tëngéej boo Rio Plus bu fa njiitul mooy topp ci kiy ñëw mhm. te duñ ne la sax trans buñ paree dem nañ seen yoon newu ci te loolu mooy développement Tëngéej boo mhm. waxee max lim lay wax mooy ñun Tëngéej lañ bokk kon lu Tëngéej di développé dañ ko bu dee leneen leneen la mais lii dañ ko oote ngir Tëngéej dañ ciy participer comme ni ci ñëpp di participer mhm. loolu ñu leen ciy sant bu baax di ñaan seen télé bi yàlla na dem ba nekk ci télé yi gën a mag ci àdduna ndax lépp loo gis tàmbali la lépp loo gis tàmbali la waaye fi ngeen tàmbalee neex na moom sama papa la moom sama papa la mais Cheikh bëgg lu yomb. mais léegi bëggatuma bëggatuma lu yomb bëggatuma léegi lu yomb. mbokk yi teel li leen leen indiloon seen émission bii di jàmbaar. kontaan nañ trop maa ngi remercier Libaas maa ngi remercier kii ma àndal sama caméraman bi di Ra solal naa ko trop Ra du Peuple. Mhm. heure bu ne laa koy solal heure bu ne la may woo heure bu ne lay woo Libaas naa ko émission bi émission bi. kontaan nañ ci trop di leen ñaanal ngeen abonné ci cloche bi ngeen abonné. bu tamit waa Rufisque nawetaan ndax mënumaa wax ba jeexal. te leen tudd. muy foo xam ne fair play moo ko tax a jóg ci nawetaanu Tëngéej. di wax na ko ñëpp bàyyi xel Rufisque nawetaan 100 pour cent fair play bëgg nañ football nawetaan yi ba mu jeex te du am dara tey yàlla dogal ñoom bi ñu dajaloo waa Tëngéej falaat ma président ñu war a dox ci jàmm ci nawetaan yi ñu jëm ren jii mhm. di béggee sama gaay yëpp waa magu démb mhm. xam nga di leen béggee ñoom ñëpp mhm. waaw su ma nee magu démb tudd naa ñëpp mënumaa lim tur kon day mel ni daal man comme damaa nekk ci di borom dëkk bi ni ko nit ñi di waxee. su ma tuddee ñiy bàyyi ñii yat wi damay dal. kon maa ngi bëggee waa Tëngéej ci yëpp. Mhm. di bëggee it waa wax sa xalaat ci Rufisque. Mhm. ndax temps yi ñu ngi waxtaan lu am solo ci Tëngéej ba tax na lii mu monsieur le maire di def. Mhm. damay ñaanaat tey lancé waat appel. li may wax dafa ma ñor campagne bu jotee nañu xam ne dañuy campagne. waaye bu jeexee nañ xam ne jeex na nañu jàppale monsieur le maire mu liggéey buñ ñëwaatee élection li mu def bu ñu doyee ñu bàyyi ko bu ñu doyee jëlee ko mais guddi yi ñu toll defar dëkk bi na ñëpp booloo takk ànd ak moom ak quatre maires yi fi ne ñu defar tëngeej foofu laay daaneele sama kàddu guddi guddi tëngeej su yàpp bi bariwul sax na saf rek libaas kontaan nañ client yaa ngi taxaw fii ñi ngi jégool tamit ci dérangement bi ak déplacement non non li moo jaadu waaw ñu ngi nii ñooy sama njaboot jeex na mbokk yi jërë ngeen jëf di leen waxaat xaar leen ni fan yii di ñëw ci néew a néew ci beneen jàmbaar ci beneen ndaanaan ci beneen leader ci beneen ambassadeur Rufisque ñun taxaw ak moom waxtaan ak moom ci jaar-jaaram ci fu toll ba mu agsi fii mbokk yi jërë ngeen jëf man maa ngi doon présenté man maa ngi tudd Cheikh Mboup kontaan naa ci yow Ra jërë ngeen jëf.